waxtaan gi nag ñoo ngi ko waroon waxtaanee jëmale rek ci woote ci taxawaay gi nit ñi war a am ci li ñuy dëgmal muy ëllëg gannaaw ëllëg ak bu soobee yàlla le trois avril ci li ñu woote nañu manifester fépp ci senegal ba Macky Sall xam ni sénégalais yi ànduñoo ak moom manifeste gi nag ñépp ci war a ànd manifester bu ñu jàpp ni manifester yi affaire ndaw ñi kese la wala affaire Pastef kese la déedéet. li Macky Sall bëgg bu ko amee kenn ku ne fi nga toog di nga toog matt sa baaraam bu cax la ñu xeex ñun ñëpp ba ànd ba yegg si fii ba Sénégalais yëpp am yaakaar ni lañ doon xaar boobu ba léegi fukki weer ak benn gën saa gudd moo ci des pour ñu mun cee commencé koo liggéey ba ñëpp gis àdduna yëpp gis ni senegal ay ndawam la keneen mën ak la ñeneen mën mën nañ ko loolu la makki Sall bëgg a fànq tey moo tax bu kenn jàpp ni mbirum Ousmane Sonko la mbirum diw la wala diw Ousmane Sonko xaarewul dara ci politique salaire sax bëgguma ko ci politique yàlla mi ñu tiim ak weeru koor gi yéene gu ñu am ci réew mi rek bëgg liggéeyal réew mi jaamu ci yàlla ba waa réew mi yëpp gis ni lañuy seenu feneen walla la uti feneen ndeket yomboon nañu suñu biir réew loolu la Macky Sall ak li mu àndal benn benn yi mu àndal bëgg koo jaarale ci justice moom lañ ne tey dañ ko bëgg fànq ndax dinañ ko nangu moo tax yow taximaan bi yow baykat bi yow étudiant bi yow menuisier métallique bi yow ouvrier bi yow yow yow kii yow mii di jigéen gi ñépp laa boole woow ñu bañ a sàggan ba Macky Sall noggatu ak nappaate gi mu nekkee foog ni mun na tiital sénégalais yi ba kenn dootul ñeme yëngu loolu bu mu mucc bu mu am mucc li ko mën a dindi nag mooy askan wi bis bu xamee dooleem xam mën-mënam xam ni xajul ci kenn xajul ci Macky Sall xajul ci police am xajul ci gendarmerie am gis ngeen tubaab yi la ñu am amuñu ko tey ab français bu toogoon liggéeyul sax am na lu muy fayeeku weer wu ne loo xam ne mun na ko permettre au moins mu fay location ak dund te tey ñoom ñi ngi génn di xeex suba ba ngoon jot ñuy xeex xeex yu metti parce que rek dafa am réforme bu ndaw bu ñu bëgg a jàllale pour ne léegi dootuñu retraité ak 62 ans waaye 64 ans la ñuy retraité waaye xanaa ñooñu dañoo war a gën a bëgg seen bopp bu ñu toogee dégg ay nit di essayé dugg ci xelu ndaw ñi naan leen ku fi dee yaa perte ak nangam nangam dama naan xeetu njaam googu moo taxoon tubaab gi noot suñuy maam. xeetu wax jooju mooy nangu tënk sa bopp si jaam moo taxoon tubaab bi noot suñuy maam génération bi ñu toll nag weesu na loolu dañoo xam ni réew mi rek lañu am amuñu feneen amuñu beneen nationalité bëgguñu ko sax réew mi nag doomu réew mee koy defar te bokk na ci li koy defar ci doomu réew mi projet bii ñu leen andil joxuñu leen xaalis sexaluñu leen lem menacé wuñu leen mais di leen won benn benn ngeen di gis ba tey ñu am yaakaar ne ñu nga ca cappaandaw Macky Sall ak ay juge ak ay procureur ne ñoom ñooy taxaw ne tey loolu du am ci Sénégal buñ ko nangoo rek ñun ñoo nangu ñu tënkuñu cib njaam moo tax nag ñu ne na ñëpp génn suba le 29 gannaaw suba le 30 ak le 3 avril bu ñu kenn essayé boole kenn ndax dangay ngay dégg ñu naan waaw ñoom respecté ñu république bi ndax date bi kenn waru cee manifester Macky Sall dafa respecté république Macky suy tëjaatee da daf ci xool luy 3 avril ak luy 4 avril suy dóoraat ak suy dóor nit ñi ay bal daf ciy xool ban bés sañu nekk dama ne ku mën a xeex na xeex ku mënul xeex na maadu ci li ñuy xeex waaye kenn duñu tënk ci yooyu ñenn ñi dañ naan waaw 4 avril feetu armée bi la kon weeru ko ñun 4 avril kenn tuddul 4 avril 4 avril suñu 4 avril ñun ñëpp la te armée bi kenn ëpp ëppale wuñ ci kenn gënuñoo fonk armée bi ñun dañoo xam lan mooy armée waaye lañuy xeex bokkut ak loolu te gëm naa ni li ëpp ci armee bi ànd nañu ñun ci li ñuy xeex dama gëmuma ko sax dama dama cee am yaqin moo tax bu leen kenn dugal ci débat yu amul solo bu ñu deltoo gannaaw rek. mooy may nañu Macky Sall fu mu jaare ba faw te kenn dootul noyyi ci biir Sénégal